kulo ni tata je bi ifaŋo be a loŋ na ko tooñaalu ñinul fanaŋ be kata kam baake le billahi e eh, wo le mu e eh, ko le mu jumaate lamin kujaabe e eh, lamin mun fana classe med le te seconde school to ah, na na boss lek e wo le <laughs> dro bitum mbadi mo wo le mu kote mu yalan ko ko ngam fahimin dro ni mum lamin sane kol mum bara ko ako banko président len natalo fana na na wel so manda bon ni bon ni bo bunda dre ko foloje ako ka sawar ndi bakale de andu wolom de wo ñanta sawarindi la baake de wo ñanta sawarindi la baake de biko sa bari nom ñinen de ngam sale bi na sene bunda programme ñinto e eh, mu ye samba fo busura dama yalla nga fon ngi traje momor lamen sane nomor la yalo sare ko dan kolu ay do ko doku la jang da ah, kañi de sañ sama komantu len ay mire abondi kan layle ada eh, ba kata kam pour quoi fanan na balo ka senote do wo kulto nyal la sinyo ya kulto ni mun kata ko to mat abe do ken la jam ba je kan nyamin don eh, mu ya lon ko a eh, fanan ba kam fam fam to o la men ngeni bara ba ke ni bara ba ke ke fa be be fe do ni sama na la ni ala sonta hanna be kala cheme fulati for the force consignment be odi lambari nela banko president banko president hanna be kala bodin wanoti cheme fulati hamɓe wole kata kan jandi fula jiyoɓe eh, fala tac duma o ɓatara la malum be konta ko sotla ñaadi le ha ka fay ko ayna lemna ju fula e cheme fula o cheme fula tajang ay ta o fenke ha ni ni yatara be sila cheme lulu la fanan fine ha ni yatara be sila cheme lulu mba bele dila la fo the consignment ha ha because name

takkatoo nañ ba enoo fii néeg takkat ngir takkatoo enoo néeg buñ xadd fii ba euh, muy néeg ab seng ba kër ñaata ndax ndaa moom ko ko mën a def mag mag ma fay woon démb moo mën a ndax ndaa waaye gone mënut a ndax ndaa nga takk jabar joo xam ne jii faale wu sa ndey faale wu sa nga tabax sa kër ba mel ni fanaan mu yóotu caabi ja ko karaj tëj ndey du dugg baay jarbaa du dugg rakk du dugg jabaate kunda biñ fa ñëwee di ko sanc masalum jabaate moo nekkoon borom kër gu mag gi bi nga xamee ne ñu ngi nawet bi jot na ñax mi sax na bokk xalal yàlla la nañ da jàppante di xéena xante jàmm dimbalante bi yépp ci xol yi laay jógee nañ delloo sëy si muuri aada yi naan def di ngoonaar di wéyal ngoonaar bi lu bari la ñuy wéyal borom néegi sey fokk borom jàng ko nit ki soo dëkkeek moom muy sa doom wax dëgg yàlla nanga def ci moom lu bari waaye nag dafa am bés boo xam ne bu jotee bokk yi ñoo lay jàppale lu tax ñu dajee mooy waxtaanee mbiri dëkk bi cosaan leeg jaaxle yi fi nekk ak ak niñ doon dundee bu jëkk nañ sàkku jàmm nañ sàkku jàmm nañ sàkku jàmm wallaahi buñ sàkkuwut jàmm lépp lu ñu am danañ ko ñàkk. lel dafa am woy yoo xam ne buñ ko doon woy rek nga xam woy bi lu mu tekki ñu jox la ay posin yoo xam ne boo ñëwee ci léegi bu ma yónnee ci kii ci maadi léegi su ma àggee ci néegam am na nu may fekkee dallam yi moo may wax ne bismillah wala wal buntu. Bye. shaking and for being some other part of this world. Yes, you did what I'm saying.